li nga xamante ni mooy Covid 19. mu indi contexte boo xam ne day contexte bu bu xaw a doy ndax day tawat ju yéeme yoo xam ne ni muy walaatee dafa gaaw di tawat yoo xam ne dafa daj kap àdduna si li nga xam ne moom la dal ci àdduna ëpp na 30 millions de personnes li nga xam ne moom la faat ci àdduna jege na un million de personnes kon.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 képp koo xamante ni yaakaar nañ ci yow feebar ñu mën la orienter ci bërëbu fajukaay yi nga xamante ni ministère de la santé et de l'action sociale teg na ko ba pare unité d'alerte et de prévention ñëw appuyer leen aussi en termes de ressources beneen bi ci topp mooy li nga xamante ni mooy tax ba nit ki yenn wàllu comportement yi mu war a am ba nga xamante ni liñ koy sant ci feebar bi mënu ko def wala boog lii tax ba moom nanguwul feebar bi ne feebar bi am na ñu fexe ba dindi loolu ci jaarale ko ci li nga xamante ni mooy communication sensibilisation ak wone ñi nga xamante ni suñuy yaakaar lañ tey ak ëllëg ñu koy def te waroon na mën a taxaw ne duñ ko def ñu gis leen ñuy takk seeni masque loolu buñ ci xoolee dana war a mën a gën a tax ñu jël suñuy masque di ko takk beneen bi ci topp mooy naka lañuy def ba nga xamante ni nañ daan faj ñu feebar te leneen dal leen lu dul Covid 19 nu ñuy wéyalee loolu ba nga xamante ni képp ku feebar ñu xam ne feebar nga am na loo dal nga mën a dem hôpital ñu mën la faj faj bi nga xamante ni mooy faj gi mu mucc ayib.